إخوة Iman, Assalamualaikum warahmatullahi ورحمة wa barakatuh. وبركاته eh, mbokk yi nga xamne ñu ngi ñuy kaddu gi fun mënti ka nekk eh, ñu fas ñew ci benen anam bu am solo Moy anam bo xamne bu mata fatale. anam bo xamne ñun ñepp mo ngi ci sa kanam ndax ñun ñepp ci wara bayyi xel Lol nek suñ borom fatali nañu ko ay yoon yoon fatali ñu ko du du ñett waaye xëy na doomu aadama rek ak yi nga xam ne moo ko sonal moo tax ñu bari di ko fàtte tey nag tomb bi ñu waxtaan ko gis euh, image yii nii xam ne tomb la boo xam ne bu raglu bu mata bàyyi xel tomb bi mu ngi aju ci koo xam ne danga am mbokk mu faatu ak booy dem ci bàmmeel di ziyaare naka lañ koy defee waaye balaa ñu ci àgg dañuy laytaayee tomb bi almuqaddimaat jiital mooy lan mooy maanaam man huwal mawtu ñu naan ko dee ci wàllu wolof ndax suñ boroom daf ñoo njëkk a wax lu am solo wala nabul wannakum bi say min al xawfi wal juuci wa naqsu min al amwaali wal anfusi wassamaraat wa basiri soobirina allazina isaa asaabatun musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun kon jàpp naa ne loolu rek Eh, suñu boroom leeral nañu ko lu ñu njëkk wax nan leen nattu ñun yàlla ci ngeen ragal ci xiif ci seen alal seen bopp seen liggéey liggéey waaye nag ñu bégal ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mu ne nag saa bu ngeen jotee musiba na ngeen wax ñun ci yàlla lañu jugee ci yàlla lañu dellu kon képp koo xam ne yaa ngi dund ñu ne la diw faat na danga war a wax alhamdulillah après nga teg ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moo ci yàlla la ñuy jugee ca ci yàlla la ñuy dellu euh, dee moom nag euh, bi ko yàlla bindee ba noppi dafa wax waxoon wax ju am solo te wax jooju ba ma ko waxee ba tey la gëj a wax euh, bi ko yàlla bindee di ko jox malaakal mawti bi mu ko jox nag ñu koy wax Asraayil moom mooy malaaka mi nga xam ne moom la yàlla jox dee ñu koy wax malaakal mawti dee nag bi ko yàlla bindee dafa ne yàlla balaa nga ma jox malaakal mawti bi maa ngi lay ñaan nga may ma wax ay kàddu yu am solo kàddu yooyu nag bi mu ko waxee danee man dee mii eh, maay tas kër yëpp maay taqale ñaar ñu nga xam dañ doon ànd te bëggante lool man dee su ma fa ñëwee dinaa leen tàqale eh, man dee mii kër gu ma dëgg mu ràpp man dee mii maay taqale yaay ak baay taqale yaay ak doom te kenn du ci mën a tàqale jëkkër ak jabar tàqale mag ak rak mu ne man dee nii kër gu ma dugg mu ràpp kon dee bi ko yàlla bindee moom kàddu yi la wax ak suñu borom ba noppi suñu borom daal di koy jox malaaka mu ni wax Asraayil ñu koy xam malaakal mawti eh, yàlla suñu borom nag li mu yor dafa bëri lool xëy na mbindeef yi ñoo ci gën a tuuti waaye mbindeef fi ñoo ci gën a bëri biir wi gën fee bëri bari ay problème waaye malaakal mawtu yi mi nga xam ne moom képp moo yor lu aju ci wàllu dee ku war a dee moo lay rey te fa toog du fa jug bu yàlla amutoon genn mbugal ñu ne yàlla amul dara ci mbugal gis malaakal mawti moom képp dara na mbugal ndax xeeti njàng gim njàng ak xeetu doywaar gim doywaar lépp lu ngeen gis muy dund am na ci kanam lépp lu naan am na bakkan di dund ak a dee boo demee ci malaakal mawti mi nga xam ne yow moo yor wàllu dee yàlla def na fa kanam kooku koo gis rek am na fa kanam léegi nag dee nag mooy nekk lu am solo mooy tax ñu ne diw jóge na fi jóge na ci barab bi jëm ci beneen barab loolu fekk dee amut loolu mënta am euh, ki nga xam ne nag yàlla dogal na muy dund da yëg ay bànneex di yëg ay naqar waaye nit ki lu mu jànkoonteel ci bànneex lim jànkoonteel ci ay naqar ban naqarub dee wala mettitu dee su ñëwee buy dund ak moom luy metti ci kaw suuf looloo koy gën a metti lim mës a yëg ci metti rek bu dee dund mettitu dee keroog dootu dund lu faw loolu te dangay gis ci boroom xam-xam ñu bari ñu wax ne nit faatu na lu tolloog junni at nit gént gis ko mu ne ko ba ma faatoo ba léegi maa ngi yëg méttitu dee te ñooñu boo gëstoo ñuy def lu baax lañ ñuy góorgóorlu ci lu baax lañ ñuy góorgóorlu ci lu yàlla gërëm lañ kon loolu it ku ci nekk war nga koo bàyyi xel bi ci toppaat dee nag su koy nit ki di def dafay jànkuwanteeg ay coona ndax ñu jamono la junniy paaka lu muy métti métti métti dee moo ko gën a métti kon dee méttiwaay bi kenn mënu koo takk te yonent bi ñaan na yàlla ni ko dee lu métti métti wàññi ko ba nga xam ne sama xeet du ñu yëg lenn li te teewut nit ñi dañuy yëg méttitug dee nit ki bu malaaka mi ñëwee du ko jël si moom kese lay gis ñàng gi ñàng moom kese mooy gis malaakal mawti nga xam ne gis gim koy gis da ciy jànkonte ak ay jafe-jafe léegi nag kooku bi nga xam ne malaaka mi jël na ruu gi ba noppi bi mu ko jëlee nag ruu gi sunu borom génne na ko ci moom mu nekk leer goo xam ne dana nekk ca barab ba nit ki nekk di fa dund ak moom nit ñi ne diw dee na kon leer gi nekkoon ci moom ba tax ñu naan diwa ngi dund leer googu la yàlla locc ba noppi def ko mu nekk jëmm joo xam ne mu ngi dox kenn du ko gis nag moo tax nit ñi ñu ngi dem dëj yoo xam ne borom dëj bay sax mu ngi leen di ndax bëri na ci ko dem dëj koo xam ne du ñaanal ki faatu du ko defal dara lu nekk fay jëw ak di nekk naan diw xoola soxnaa mi xoolal lii xoolal lii te fekk na ki ngay wax loolu jamono jooju mu ngi lay dégg mu ngi lay gis loolu it ñu bari war nañ cee bàyyi xel léegi nag nit ki jugee na ci benn monde jëm ci beneen monde ban monde la jëm mooy monde boo xam ne euh, liggéey na ba war a dem pour fayeeku ji mu ngi mel ni ko liggéey weer bu dee nga war a dem fayeeku ji foo ma jël sa xaalis da ngay kontaan moo xam way laa ngay mer ndax parce que bu dee dese nga fa lu bari sa xaalis doo bu dee lu bari nag di nga mer mooy bu dee lañ nga fa jëf boo demee kenn du sikki sàkk loolu lu mat di bàyyi xel la eh, kon nit ki dee googu mooy jugee ruu gi leer gi doxal jëmm ji ndax lii matière yaram matière la rek matière boobu moom lañ composé moom lañ connecté ak ruu gi mooy tax mu yëg lu neex di yëg naqari léegi ruu gi nag su dañee ne nit dootu yëgati dara moo la ñu nit bu faatoo bu buñ ko teg fu suufe nañ koy teg fu kawe ndax dootu mënta sàmm boppam léegi li ko waroon a sàmm mooy ruu gi muy tax mën a motandiku lii da koy gaañ wala da koy lakk mooy ruu googu moo koy def mooy leer googu leer googu nag bu dañee day nekk ci environnement bi nit ki nekk léegi nag di dégg di gis lii nit ñi di wax su nit ki faatoo buñ ko buñ ko dee sàng day yuuxu ndax ni metti di dee doon génnee ci moom ni ruu gi di génnee ci moom mu ngi mel ni nga jël éponge rek di ko naj pour génne ndox mi loolu day métti ci éponge waaye éponge bi du matière boo xam ne am na ruu ba tax mu yëg mën mën a nga mën a xam léegi nit ki jamono jooju da ciy da ciy jànkoonteeg ay coona bu doon def lu baax day jàkkaaroog lépp lu mosoon def ci lu baax moo tax eh, ku ci nekk ci ñun yebo ñu teel a jiital lu baax teel cee bàyyi xel xam ne nit ki su faatoo day jàkkaaroog lool lépp mu doon def moo tax lool it lu ci mat di bàyyi xel ñu bari nag eh, bàyyiwuñ ko xel ndax ñu bari dañuy jàpp ne ku dee rek jeex na dangay dem tëdd nekk ci jàmm après nit ñi dekk fekk la fa ñu dugg aljana mu demee noonu mbir yi loolu doxewut noonu donte yàlla mën na ko nag ndax yàlla lu ko soob lay def waaye mbir yi doxewut noonu nag kon nit ñi nañ ci bàyyi xel ndax yàlla lu ci nekk leeral na ko leeral na ko jaam yebal yeneent yi ñu dikk lépp mu wax leen ko kon nit ki jamono ju mu faatoo ñu koy sang day metti ci moom buñ xëppee ndox mu sedd day yuux buñ xëppee ndox mu tàng day yuux lu ci mënti kaa xëpp day yooxu ndax jam day mel ni kun jam ay paaka ba noppi di ko raxas ak eau javel ni muy méttee noonu noonu lay méttee nit yi di yooxu naan yéen a ngi may gaañ yéen a ngi may sonal instant bi yooxu nag lépp koy dëgg ba mu des nit lépp liy bàyyi may dëpp koy dégg ba mu des doomu aadama ndax doomu aadama amut nu mu bën a déggee lool ndax yàlla moo nëbbu kiiraay loolu ba tax suñ boroom dogal lool léegi nag ba nga xam ne yàlla nit ki faatu na jankonté ak ay ciona ak ay jafé jafé motax yawma naqtimu ala afay wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun lolou mata bayi xel la bis ba nga xamné sen leppay wax sen tank seeni loxo ak sen lepp lu ngeen mësa jëf loxo day wax tank day wax kon képp ku manti ka doon bu len dindi kolere gi dox digënté ak sen borom ndax sen borom daf len wax alastu bi rabbikum ngeen bale ndax duma seen boroom nga ne ah mu diggal leen ngeen waa def mu digal leen defoo leen kon kulle ak sa boroom googu ku ko war boo liggéey di nga ko gis eh, li tax loolu mooy yàlla bim ñu bindee jox ñu ay xel ñuy xalaat daf ñu wax ne lii mooy lu baax wax ñu ne lii mooy lu bon ku fi bàyyi lu bon li nag nekk ci lu nekk ku fi bàyyi lu baax nekk ci lu bon boo liggéey yaa koy wéetoo waaye ku fi bàyyi lu bon li nekk ci lu baax boo liggéey yaa koy wéetoo kon nit ki faatu na suul nañ ko suul googu buñ koy genn di ko yóbbu ci armeel yi bu buñ koy sàng danaan may leen ma gis sama njaboot gi waaye loolu doomu aadama duñ ko dégg moo tax lu mat di bàyyi xel la ñi nekk ci sàngkati néew yi ak ñi nekk ci barab yooyu dañoo war a nekk ñu war a xam ndax parce que yëpp néew bi day yuux ruugi instant boobu ruugi mooy wax loolu lépp waaye jëmm ji nekkatut na moo ko waaye ruugee koy wax di yuuxu di gis yi nit ñi def lu ko nit ñi def nag mu ngi koy yëg mu ngi koy gis doomu aadama yi duñ ko bàyyi xel waaye lépp lu waaye def ku faatu ki moom mu ngi ko yëg mu ngi koy dégg lu waay wax ci kàddoom ci lu ñaaw bi mu faatoo ba bañ koy saraxal ba bi am weer lépp lu waay ci kër ga mu ngi koy dégg mu ngi koy gis kon ku fi am mbokk mu faatu ngallaawaay na ngeen ko rafetal ngallaawaay na ngeen jëf ci moom lu baax te xam ni mu ngi leen gis mu ngi leen dégg ndax yàlla defal na loolu ñi nga xam ne moo faatu ala kon nit ki faatu na ñu ngi koy sàng mu ngi yooxu ne damaa gis maa bëgg a gis samay njaboot. muy yuuxuwaat naan maa ngi jëm foo xam ne ah fu doy waar la de bu dee ko defoon lu baax dana tiit lool ndax naan su ma yëgoon def lu baax mu gën a góor mu bara bari bu doon kuy def lu bon tamit dana yuuxu lool xam ne lam fay fekk du gën ci moom ndax kër gu bees néeg bu bees lal bu bees mallaa bu bees dara bu bees ku fa dem am lu la màtt yàgg fa yóbbu waaye nekk fa woon kon loolu it lu mat di bàyyi xel la kon dee lii la loo xam ne ñun ñëpp mu ngi ci suñ kanam kullu nafsin zayqatil mawti bakkan bu dund dana dee ala kulli xaalin lépp lu naan day dund rek day dee kon képp ku bëgg sa àllaaxira baax dangay jiital lu baax ku bëgg nekk cul la neex nag nekk sa bakkan boo faatoo nekk ci la neex ala kulli xaal nax sa bopp léegi nag nit ki su faatoo dañuy lëkkale ruu gi ak matière fi mu tudd. bu dee kii def lu baax la lu baax lépp da koy fekk fa mu tëdd ñu koy wan ay mbiram di ko wan ay mbiri njabootam moo tax dangay gis ñu bari dañuy faatu bàyyi fi seen ay njaboot waaye ñu ngi ak gàcce ak ay coono yu ñuy jànkonteel ndax seen ay njaboot ñu ngi ci loo xam ne defu wut nekk wut te loolu lépp da koy gis kon nit ñi lool it nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax euh, ba tey it ku yàlla dénk nga am mbokk mu faatu moo xam sa waajur wala sa mag wala sa rakk lu ngeen ci man deen leen ñaanal ndax ku faatu lenn kese lay aajowoo mooy ak ñaan ñaan googu nag mooy doon lumière bu koy ñiital pour fi mën a nekk mu nekk ci jàmm euh, ba tey it ginnaaw bi nga xam nit ki faatu na ban denc ko ci barab ban ko dencee foofu nag nit ñi dem ci barab ziyaare bàmmeel lu baax la ndax day tax nga mën cee waaroo pour mën a bàyyi xel ne fii ñu fi tëdd ah yàlla leen fi tëral kat te incha allahu rabbi ñun dinañ fi ñëw moo yenn saa salaam waxoon na dama leen koo tere woon waaye maa leen ko digal man na xaytukum an ziyaaratil qubur tere woon na ko waaye da ko mujj diglewaat pour nit ñi di ci waaroo xol boo xam ne daa dem ba daa wow daa xumaat ziyaar qubur mooy dem ci ay bàmmeel di fa xalaat yàlla di yéemu bay jooy loolu day dem ba sa xol day mujj dikkaat kon lool it lu ci am solo la Euh, ñi nga xam nag dañuy koo xam ne dangay faral di dem ci ay bàmmeel di ziyaara ji pour ñaanal ñi fa tëdd ñaan goo xam ne soo leen ñaanalee sun borom dana leen ko jox mooy nuyu goo xam ne soo leen nuyoo noonu dana leen fay ndax dafa am nuyoo waa àddina am nuyoo waa alaaxira kon ñaan gi xadis la gu am solo euh, Aysa netal na ko umul mumina radiallahu anha moo tax mu tuddee ko duxaul ziyaarul mooy ñaan goo xam ne boo demee di ziyaar ay xubóor asalaamaaleykum ngay wax ahla diyaari min al muminina wal muslimina yarxamullahu mustaqdimina minna wal mustaqirina inna insha allahu bikum la laaxiquuna xadis bi ñaan la gu am solo incha allah ku ko yittewoo mën nga ñëw contacter dinañ la jox ñaan gi ku ko jàng ba mokk soo demetee ci ay xabru di ñaanal ña fa tëdd ñaan la ko yomb naqare neex naa mokkal lool ndax ñu ngi mokkal lu gën a jafe nañ fexe ba mokkal ñaan gi ku demetee ay bàmmeel di ziyaare di ñaan ñaan suñ borom incha allahu rabbi nuyoo ña nga fekk foofu ñu fay la ndax ku suñoon boo nuyoo nit mu fay la kon képp koo xam ne bëgg nga di dugg ci ay xabru di nuyu ay nit ñaan gi wala nuyoo gi lañ leen nuyoo assalaamu aleykum ahla diyaari minal muminina wal muslimina yarhamullahu mustaqdimina minna wal mustaqirina inna insha allahu bikum la na ñaan gi li muy tekki nag mooy maa ngi leen di ñaanal jàmm yéen ñu tëdd fi yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéen tëdd ci gila kër te ngeen di way gëm yàlla te ngeen di way jébbal yàlla seen bopp ñaan leen yàlla yërëm yéen ñi nga xam ne yéen jiitu yàlla yàlla yërëm ñi nga xam ne ñoo fi des te na ngeen bàyyi xel ne ñun nag incha allahu dinañ dajeeg yéen inna incha allahu bikum la laaxiquuna balaa yàgg rek ci suñu borom dana dogal ñu ñëw fekk ci leen fi ngeen tëdd kon ñaan gi wala mooy nuyoo gi képp koo xam ne am nga ko faatu dee koy faral di nuyoo ñaan gi soo demee ci barabam wala nga dugg ci armeel wala nga romb ci armeel ala kulli xaal yi mbokk nañ ciy bàyyi xel képp ku rombati ci armeel taxawal nga jàng fatiha def ayatu kursi salaatu alal nabi incha allahu rabbi nga ñaanal ko nit dana faatu léegi na ñu tëjee incha allahu rabbi xeeti ñaan yi nga xam ne ko am ku faatu di nga ko ñaanalee boo demee ci téere bi ne alfawzu wan jaax day wax ne képp koo xam ne jàng nga faatixa bam àgg nga jàng ayatul kursi incha allahu rabbi nga ñaan yéene ko ñu faatu ci kàttanu sun borom sun borom na leen ko jox fii lu ko dalee sun maam aadama ba fii yàlla dina leen jox yiw bi yëpp ba tey it bokk na ci ñaan ku faatu ku ko man ah, jàngal faatixa ba mu àgg nga deg ci lixlaas fukki yoon ak ñaar nga tudd turuk ngay ñaanal ne yàlla maa ngi ñaan diw mii yàlla nga ma ko joxal yiw bi nga xam ne am naa ko ci nangam bi ma jàng bu dee lixlaas bu dee falaqi bu dee naas lu mantikaa doon da ngay tudd lool ne yiw bi yàlla nga ma ko joxal diw ci bàmmeelam yàlla nga ko yàlla yàlla nga ko jéggal yàlla nga ko fayal ay àqam yàlla nga ko defal feex foofu mbokk yi ku naan leen ku faatu ku ko ñaanal du ci jot loolu njuumte la képp ku gëm lool rek jàppal ni yow weddi nga li yàlla dogal ndax yonent bi saai salaam boo ne sallallahu ala muhammad yaa ngi yooy julli yaa ngi ciy ñaanal te gi ngay gëm na ñaan nga jot na kon képp koo xam da ngay ñaanal ku faatu def li nga war a def lépp nga gëm na jotu ci ñaan gi sa ngëm yàlla des na kon yow dangaa gëm ne li di ñaan yàlla mënu la koo may kon képp koo xam ne yaa ngi ñaanal ku faatu boo ñaanee ba noppi da ngay tudd li ngay ñaan tudd turu ko ngay ñaanal wax li nga jàng loolu lépp yiw bi nga ciy amee yàlla maa ngi lay ñaan jël ko nga joxal ma ko diw ak diw ak diw koo ci tudd lu mu bari bari incha allahu rabbi yàlla dina leen ko tasaare boo leen ñaanalee nag ñoom ñu koy jotee lenn la mooy nit ki su ñaanalee ñu faatu ba yàlla jël ñaan gi jox ko seen ay borom dañ koy séddoo am na ñoo xam ne benn arafu alif bi mën nañ cee dund fanweeri fan moy wer di ci ñitu di ci leerlu kon ko am ay mbokk yi nekk bitim rew da nga bëgg yónneel dara pour nga mën di soturlu fi dal ku la yónnee jooni rek day bari ci yow lool mën nga ci añ dekk ci reer ci kon jangi nga jang faatiya di len ko yónnee faatiya boobu benn araf lañ koy jël diko diko ñito diko léro fa nekk ba keroog lool li jeex amna ño xam nak dañ faa nekk guddi yu toll nek nekk ci lendeum lool ay xat-xat ndax parce que seen ay mbokk len leen wuñ len saraxalu len kon loolu it nañ ci bàyyi xel bu baax ku am mbokkum faatu ngan la waaye doo jullee waxtu benn waxtu toogal nga jàng faati ba àgg teg ci lixlaas ayatul kursi yooyu ñaanal ku faatu mbokk yi eh, nañ ciy bàyyi xel bu baax deful lu gën a farata di ñaanal ki faatu di ñaan yàlla mu jéggal ñu di ñaan yàlla mu jéggal ko lu waay def nag mën nga koo def waaye lii dara gënu ko nekk farata ndax mu ngi mel ni yow mi tukki dem bitim réew di yónnee say mbokk dañ ciy kontaan mu néew mu bari boo demee yónnee waleen nag moom dañ lay mere lool kon ku am mbokkum faatu lu bëgg mooy nga di ko ñaanal te di ko saraxel di ko yéene yool bi di ñaan yàlla joxal la ko mbokk yi nañ ciy bàyyi xel instant yi ñu bari ña nga barzaq tëdd nekk ci ay lëndëm yu jafe-jafe seen mbokk ngi fii ci àddina di noos di caaxaan nekk ci lu leen neex ah mbokk yi loolu doy na war te lu leer lañ leen wax nii luñ ci am lu leer nañu la bu ngeen gisee ñu def ci jàngat bi dañ cee xam lu leer ñu bari di ko dund guddi yu toll nii ca barzaq nekk fa ay jafe-jafe mooy kiiraay gi dox diggante àddina ak àllaaxira ñuy gis li xew pii lépp yàlla di leen ko wan ñuy gis seen mbokk yi niñ nekkee ci àddina ñaanalul leen toppatoowul leen am na ci ñoo xam ne seen ay baay ba faatoo ba léegi ñaanalul leen seen ay yaay ñaanalul leen te képp koo xam ne am nga sa mbokk mu faatu ñaanaloo ko saraxeloo ko jàppale muy gis li ngay def di ko xam yàlla nga koy wan koo xam nag sa waajur dalaa daa nekkoon ci lu baax faatu bala fi nga nekk ci lu bon jàppal ne sa waajur mu ngi koy yëg kon mbokk yi deful lu gën a farataal mooy di ñaanal ñi faatu eh, bi koy jeexal nag ñu ngi fas yéenee dugg ci ñaanuk fiddaawu fiddaawu mooy ñaanal koo xam ne da koy jotul yàlla mooy da koy defal audience digganteem ak boromam ñaan goo xam ne soo ko ñaanee da ngay rafet njort yow jullit bi xam ne kii yàlla jox na ko ñaan gi kon ñaan gi mooy lan ku ko man def ko. Ah, joxe won nañ ko ci bee passé insha allah dañ koy joxewaat fii ah, fatihatul kitab ngay jàng benn yoon mooy sootul fatih bismillahi rahmaani rahim bala wal daalina amin bam jeex tàkk nag juróom ñaari aay la jàpp naa ni kuy julli war nga ko mën ah, bi ci toppaat nga jàngaat bismillahi rahmaani rahim 21 fois mooy bismillahi rahim bismillahi 21 fois bi ci toppaat nga teg ci ayatul kursi bi ci toppaat nga teg ci ñeen fukki l'ikhlas moy qul huwallahu allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad euh, bi ci topat nga teg ci falaqi ak nasi da ngay jang kon rabbin fallaqi bam jeex tok ci kon rabbin nasi bam jeex tak euh, bu ko defé nga teg ci ayatul kursi ben yoon so nopé nga daadi di ki ngay ñaanal ne yalla maa ngi ñaan diw mi may ñaanal ni lima jang ci fatih ak bisimilahi rahmaani rahim ak lixlaas ak ayatul kursi ak falaxeeg naasi li nga xam ni moom nga ci def te nekk wàllu tiyaaba wala yool bi nga xam ne am nañ ko ci ñu ngi lay ñaan yow yàlla yow mi nga xam yaa tedd yaa mën lépp xam lépp diw mii yàlla nga jël li joxal ñu ko ko te nga jéggal ko te nga fayal ko ay aqaam te nga doxal ko digganteem ak boroomam dox ko digganteem ak ay moroomi jaam ak yim amel ay morom jam mboolem ñaan gi nga ñaan ko am yaqin nak ne gëm ne yalla li nga bëggoon defal na la ko kon ñaan gi kep ku ko ñaan ñaanin wu demeni. ni ala kulli halin rafetal njortu ne sa mbokk mi ngay ñaanal sun morom dana jël lepp jox ko ba ayatul kursi lu bax la ku julleeti waxtu juróom jangal faati ayatul kursi ñaanal sa mbokk mi faatu ba tey ku ko mënut waxtu yu juróom yi soo jullee defal lixlaas fukki yoon ak ñaar ñaanal sa mbokk mi faatu moo xam sa yaay wala sa baay te boo toogee ba yàgg nga xawal dara génne saraxel ko ñaan yàlla joxal ko yool bi kon ki nga xam ne moo faatu lu mu fi desee mooy ay njabootam yi mu fi bàyyi woon ñu koy ñaanal te di ko saraxel te li mu fi bàyyi woon ci wàllu kóllëre ñu koy dox te di ko fàttali ko loolu deful lu gën a kawe lool kon képp koo xam ne am nga mbokk mu wàññeeku na nga koy faral di ñaanal te di ko bàyyi xel te loo man ci lu baax wala lépp loo jàpp ne lu baax la fexeel nga def ko kon xeeti ñaan yi mën a ñaanalee ku faatu bari na faatixa sax boo ko mënee jàng ko benn yoon wala ñaari yoon sans dépend ci loo mën nga jàng ba mu àgg ñaan yàlla yool bi joxal ma ko diw ak diw doomi diw ak diw loolu ku ko def rafet njort ne yàlla jot jox na ko diw kon képp koo xam ne am nga mbokk mu faatu mën ngaa jël wile ndénkaan ñun ñëpp ñu di ko ñaanalee suñ ay mbokk ku mën lixlaas junni defal ku mën ñaari junni lixlaas defal nga ñaanal sa mbokk mi faatu ñaanal ko yàlla jéggal ko ñaanal ko yàlla jafe-jafe yi nekk foofu suñ borom sutural ko ba génne ko ci te ñu bari nag guddi yuñ toll nii ñu ngi am ay mbokk ñu ngi ci ay jafe-jafe yu metti ñu ngi ci lëndëm ndax képp koo xam ne faatu na ñaanaluñ ko saraxeluñ ko ci ay lëndëm lay nekk ci guddi yu bët tegut lay nekk day nekk di jafe-jafe daanaka am na ci ñoo xam ne lu leen di may tiyaaba mooy ci lu ñu jot mooy suñu ñaanalee julli ñëpp ñoom ci lañuy am benn alif wala benn benn sadda daal ci jëfandikoo ñetti fan mu jeex mu ngi mel ni koo xam ne amul lum lekk bu demee yalwaan am ñaar téeméer bu ci ndekkee mu jeex mu nekkaat ci ay jafe-jafe noonu la mel ci ki nga xam ne dafa faatu suñu ñaanalee jullit ñëpp rek moom ci lay am dara waaye benn mbokkam du ko ñaanal du ko saraxeel moo tax mbokk yi euh, alaakulli xaalin nañ gën a gersuwaat ñi faatu te bàyyi xel ñun fa leen jëm ñun ñi nga xam ñu ngi dund nag nañuy fare di di ñaanal suñu bopp di ko jiital ndax guddi yuñ toll nii kenn taldut kenn ku dem ci dëj ay waxtaan ay jëw ak i caaxaan lañ fa nekkee kon ku faatoo gudd soo jullee waxtu juróom ba noppi jàngal lexlaas fukki yoon ak ñaar ne yàlla maa ngi lay ñaan liit tiyaaba bi yàlla nga ma ko teel sama bàmmeel ba keroog may faatu yàlla téel la soo faatoo di ci dund ba keroog say mbokk di la gën a ñaanal ndax loolu lu mën a nekk la kon ku faatoogu tamit deel ñaanal sa bopp di fiddaawu say bopp balaa ngaa faatu soo faatoo yàlla jox la yiw bi ngay dund kon alaakulli xaal yi waxtaan bu am solo ci wàllu faatu ak dee ak ñaanal ko faatu ak ni ñuy ziyaaree bàmmeel ko faatu incha allah yàlla yàlla defal jàmm defal leen ko yéen ñëpp ci kàttan